moom borom bi subhaanahu wa taala eh, tey dañu bëggoon lañ tuut lu jëm ci li ñuy tudde al waqful islaami yi waqful mooy nit ki jël alal joo xam ni daf ko lew doom moo ko moom mu jox ko yàlla loolu nag dañ koy xaw a sàggane jullit ñi tam doon loo xam ne am solo la ndax am na cëslaay ci lislaam yonent bi alayhi salaam dund na ko ak i def nañ waqful islaam yi waqf nag soo xoolee baat bi baat la boo xam ni lislaam moo ko moom al waqfu baat la boo xam ne mi ngi juddoo ci lislaam du lu njëggaan mais diina ji lislaam moo ko moom li muy tekki mu waqfu ci baat bi mooy tekki al wal xabsu te mooy taxawal dara mu taxaw benn place teeku mu taxaw loolu lay tekk ci baat bi ci làkku arab buñ ko waxee nag ci njàngaleem boroom xam-xam lislaam yi li muy liñ jublu ñoom bu ñu wax waqfu mooy taxbisul asli wa tasbilul manfaa loolu mooy al waqf mooy da ngay téye da téye mbir mi cosaan da koy téye garde ko léegi nag joxe njariñ li ndey ji dafay toog njëriñ li moom da koy joxe da mooy taxbiisul asli wa tasbilul manfaati njëriñ li ci juddoo ci mbir mi nga jox ko yàlla wala jox ko jullit ñi waaye ndey ji nekk fi loolay tekki moom waqfu nag dafa doon loo xam ni lu am solo la ci lu jëmee lislaam kanam ndax bari na ci lislaam mbir yu bari yooyu dégg mu dox tasaaroo waqfu moo fa jaar raxma tasaaroo ci ci ci àddina bi ci jullit ñi kon waqfu la am solo la ki ku njëkk a def ci lu luñ xam ci taarixul islaam du sax ab jullit ab juif la ab yahud bu nekkan ca ca Medina xam nga Medina bi fi ñu sam-sam nekk dafa dafa dafa signé pacte ak yahud yi ñu ànd na ci dëkk bi kenn du tooñ kenn boo amee lu jóg ci war a attaqué Medina ñëpp a koy défendre aar dëkk bi ndax ñoo fa bokk dëkk ñoom ñëpp jullit comme ku dul jullit am ku ñu tuddee mu xay moom la tudd ab yahud la ca gaswatu uxudin muy xare uxud mu def benn testament wasiya daal di bind ne may dem ànd ak ñi xare ji pour aar dëkk bi Madina bu yàlla dogal sama bakkan des ci ñu ray ma sama tool yi ma fi am jox naa ko Muhammad loolu wax mu ni bu fekk dañ ma rey ci xare bi dee naa ci xare xas xaswat Uhudin li ma fi am ci tool ci Madina léegi jox naa ko Muhammad mooy xool nu mu ko def yàlla dogal ñu faat ko ca rasut wax di moom mu xayrix léegi yéen son salaam moom kon moom moom tool yi mu jox ko yàlla jox ko jullit ñu koy jariñoo loolu mooy wax bi njëkk am ci lislaam yéen bi jël tool yi ni ci saxaaba yi jariñoo leen ko nga xam ne kenn du ko donn kenn du ko may dañ ko fay bàyyi di ko jariñoo jullit ñi ba keroog muy yàqu beneen bi mooy Amar ibn ci boppam tam def na wax waqful islaam yi dafa amoon ay tool yi nekkoon ca ca xaybar benn suuf bu mu fa amoon bu am solo suuf bu yaatu tool bu yaatu mu ne yooyu sa man damaa am ca xaybar tool boo xam ne daal musuma tool bu ni mel ci yaatuwaay ak baax léegi loo ma ciy digal ma def ko ci mu ni ko ah bu la neexee day nga téye ko moom ko ak sa njaboot su la neex tam nag def ko wax jox ko yàlla julli ñu moom ko am tuyaaba ji ñu la ko bindal sa yool Amar ni sama alal ji jox naa ko jullit ñi tool ba ne ci xaybara mu ne tool boobu kenn du ko miraas même bu faatoo duñ ko miraas ndax alal yàlla léegi Amar moomu ko ay ko donn kenn du ko jaay kenn du ko maye alal yàlla jullit ñoo koy jariñoo loolu mooy ñaareel wax bu njëkk bi amaat ginnaaw yonente bi alayhi ci lislaam beneen bi ku ñu tuddee Abu Talhata nekkoon ku jàmbaare ci lislaam saxaaba bu am solo aman benn dool bu tuddoon bayru xaa nekkoon ca Madina ca penku jàkk yonente bi alayhi salaatu wasalaam tool boo xam ni tool bu yaatu la naat lool am ay garabi tàndarma am ay teeni ndox yu sedd nekkoon ca penku jàkk Madina jàkk yonente bi alayhi salaatu Madina bi yàlla ci aaya mu wax yàlla wax ci alquran ni du ngeen mën a am àjjana lu da ngeen jël li ngeen gën a bëgg seen alal ngeen jël ca jox yàlla lan taala bi xatta tunfiqu mimmaa tuhibbuuna alxuraan wax ba nga mën a am na day àgg ca nga jël li nga gën a bëgg sa alal nga cof ca jox yàlla bi aay bi wàccee abu talxaata ñëw ni yonent bi dafa dégg dafa dégg dama dégg aay bi wàccee muy lan taala bi xatta tunfiqu mimmaa tuhibbuun te man sama ma ci gën a bëgg mooy tool bi ñu tuddee bayru xaa la gën a bëgg sama xol sama alal boon tey ci suñu misaal nga ni émolo bi ma am sàndaga moo gën a cher sama alal ci misaal mu ne ko léegi jox naa ko yàlla léegi man moomatuma ko jox naa ko yàlla léegi jullit ñoo koy jëriñoo yéen saa ni ko ni léegi nag na koy def mu ne yonte jël ko loolu nee def ko mu ne ko jox ko say mbokk ñi la gën a jege. nga mu jël tool ba léegi jox ko mbokkam moom Abu Talha tool ba léegi moom du ko doon ay ay doom duñ ko doon duñ ko jaay duñ ko maye alali ñu ko jox ci ay mbokk mbokkam ñu koy jëriñoo ba keroog addinay tukki loolu mooy wax ko islam muy lu am solo nag ndax kii ko def day dem ba faatu ci bàmmeelam di jot ay tuyaabaam ci biir bàmmeelam te fekk ma defatul dara la ko may mooy dafay bàyyoon ci kaw suuf lu am njëriñ yonente bi alayhi ci xadis ni jullit bu xasee faatu lépp lu ko doon may ko doon may tuyaaba ci suuf day arrêté day taxaw ba mu des ñett wax moom yonente bi alayhi salaatu salaam mu wax ca jaar yi sarax boo xam ne moom dafay dox ñu koy jariñoo moo xam jàkka jum tabax bàyyi ko ci kaw suuf wala kër gu mu tabaxoon jokk miskin yi wala kanam gu mu jëloon teg ko jàkka ñu koy jëriñoo en bàyyi daal am na njëriñ ci li ñu ngi koy jëriñoo mu bàyyi ko ci kaw jox ko yàlla ba keroog loolu di di ràpp di yàqu ñu koy bind tuyaaba moo xam mi ngi dul moo xam faatu kon lu am solo la benn bi mu ne ñaari bi mooy nga bàyyi fi xam boo xam dafa am njëriñ ci lislaam xam-xam bu am njëriñ jullit di ko jëriñoo moo xam téere ba taale bind ko fi la wala waxtaan wi daf ñu enregistré ko ci ay audio wala vidéo ñu bàyyi mu am njëriñ maanaam jëriñ jëriñ ñu koy jëriñoo itam saa bokk ñu ko digaloo rek jëriñ ci dara nga am sa yool sa bàmmeel kon lu am solo muy xam-xam joon ba bàyyi ci kaw bi mu ni wala mu bàyyi doom ju baax ju mu ci lislaam mu xam boromam xam xam boromam xam kan mu yonent sa salam di jëfandikoo lislaam jëfandikoo sel kooku muy dama bàyyam faatoo da koy bàyyi xel mu koy ñaanal mu ko fekk ci bàmmeelam kon yi mooy ëpp solo ci wax lu ki mën a def bàyyi ko ci kaw suuf faatu ba pare na tëdd ci bàmmeelam di jot tuyaabaam mooy xam-xam bu am njariñ boo fi bàyyi wala boog doom joo yar ci lislaam mu nekk fi di la ñaal mu lay fekk sa bàmmeel wala boog sarax boo xam ni dafay dox mais taxawut ñun ñu ngi koy jëriñoo sa ginnaaw moo xam muy kër moo xam muy jàkka moo xam muy teen moo xam même garab goo jëmbat bàyyi ko ñu ñu toog di ko kerloo li fekk ñu ngi ci kerloo rek ngay am su tuyaaba yi ma ko jëmbatoon wala mooy alwaqf al islam muy lu am solo donc xam-xam mën na ko alal mën na ko mais yeesalam te yeesalam ci lislaam te mën na ko mën na ko indil indil jàmm yonente bi alayhi salaatu salaam dafa am ko ñu day wax ni yonente bi bi muy génn àddina li fi bàyyi waqfu islaami la ne li fi bàyyi mooy baax la bu ñu doon ab baax la bu ñu doon war mu jox ko jullit ñi njabootam doonuñu ko bàyyi fi tam benn jees bu ñu doon gàn gànnaayoo muy yonente bi bàyyi na bi muy génn àddina jox ko jullit ñi waqfu la ba tey beneen bi muy. suuf suñu amoon mu amoon ca ca ca xaybar ñu ko tuddee fadak mu jox ko itam jullit ñi kon yii mooy yim bàyyi ginnaaw moom yonent bi mu génn àddina mooy tool la fi bàyyi ak ab bax la noonu war ak jees xare mu jox ko jullit mooy ki yàlla wàcc ci lislaam mu def waqful islaam yi kon waqful islaam yi mbir la moo xam ni nañ ci bàyyi xel ndax nit ki da koy def jox lim moom mu jox ko yàlla génn ko ci moomeelam ay doomam duñ ko doon xam ne génn nañ àlala moomatu ko mën naa am mën na def oto boo jënd transport nga jënd ab bis jox ko yàlla ni bis yi moom na yóbbu élèves ñuy jàngi lislaam wala na yóbbu ñu ñàkk ñuy liggéey bu ci bu kenn fay mën na nekk li fekk bis baa ngi daw rek même boo faatoo yaa ngi jot sa salaire bi sa sa biir bàmmeel kon kenn ku ñu am na possibilité de wax ñëpp mën nañ suñu tool nii amoo doole jënd bis amoo doole tabax jàkka amoo doole defar école amoo doole defar daara jëndal kaamil andi ko ci jàkka ji bàyyi ko fa wala nga dugal sa loxo ci facture yi ñuy fay courant bi tàkk ñu ngi jëriñoo di fekk lamp yaa ngi tàkk sa àll dugg na ci waqf la yaa ngi ci am njëriñ kon liñ fi ñu mën a amee amee waqf yaatu na mais yi ëpp solo nag moom mooy ñetti yi ma wax mooy doom yoo gi yoom yoo yar ci lislaam bàyyi ko fi mu la ñaan sa ginnaaw boo faatoo wala xam-xam bu am njëriñ boo fi bàyyi bu am njëriñ ci lislaam bu ñuy jëriñoo wala boog nga bàyyi fi mbir moo xam ne moom dafay dox taxawut na doon jàkka joo sa alal boo xoolee suñu mbokki jullit naar yi dañ koy def da ngay seen kuñ kuñ kuñ kuñ takk jigéen ñi mu jël canam bu def ko waqf canam lay jël nañ mi tabaxal jàkk nañ mi defal teen bi gasal teen ci Sénégal wala benn dëkk bu ñàkk nit ñi di ci naan même bu faata moom ma nga jot tuyaabaam ci biir bàmmeelam kon ñëpp am na possibilité dafa wax ci wax fil islam ñu bàyyi ci wax fil islam yi nag mbir la moo xam ni tubaab bi ñu tubaab bi ñu ngi koy copier léegi l'islam moo jiitu tubaab bi parce que Occident ñoom am na ñu tuddee am nañu tuddee organisation société civile mooy parce que mooy lii rek nga xam ne day nekk bénévolat da def ngir yàlla mais doo fayeeku parce que mooy lii mais ñoom ñu ko sàcc ci l'islam parce que ñu tuddee Andrew Carnegie ab américain la moo ko njëkk a def ci Europe 1911 la ko créé moom maanaam organisation boo xamante ne bii amul fay te moom du jullit dafa def rek pour da ko def doomu aadama yi kon mi ngi ko jàng mi ngi ko koppee ci lislaam yow mi nga xam jullit nga nag kon yaa war gën a góorgóorlu ci côté boobu nga xam ne da nga fiy defar loo xam ne ci kaw suuf nit ñi dañ koy jëriñoo jamono ji dëkk bi metti na am ñoom yàlla may ñu a tabax cité yoo xam ni dañ koy jox ñu ñàkk ñu dëkk ko may leen ko jox ko yàlla dañ ko xam ne kenn du ko doon suñu jigéen bii de Xalimatu Sàll gis naa bu mu def fii ci ci ci ci ci Bourguiba bi naar yi ñoo koy ñoo koy def te ñu aju leen comme ñun am alal jox ko yàlla seet lañ gën a soxla nga jox ko ci nga xam ne ku fa dëkk foofa yow da ngay fay yow mi fa luwee mais fay gi day yomb te li ngay fay tam dafay delluwaat ci jullit ñi mais ko lekk parce que moomu ko ko moom kon loolu anam da ci waqf mooy tabax foo xam ay fu ñuy dëkk loolu la ñu tuddee logements sociaux nga tabax ko mais nag du am fay du am fay da nga jox jullit ñi ngir yàlla loolu am ñoo yàlla may nañ àll ji mën nañ ko def bu ñu faatoo jot seen tuyaaba fañ nekk wala xëy na mënoo loolu waaye man nga jàng sa doom ci ba mu xam lislaam nga góorgóorlu ci yar sa doom ci sa doom ci lislaam boo fa jógee faatu sa ginnaaw mu lay bàyyi xel ci ñaan la ñaan bi ëpp njariñ ci jur ci ci way jur mooy woo ci ñaan jóge ci doomam dëgg la ñaan ba sa mbokk jullit ñaan am na solo mais bi gën a gën a gaaw a nangu mooy sa ñaanu doom yow jullit bi wala sa ñaanu way jur yow jullit bi moo gën a gaaw na gaaw nangu ci yow ci keneen doon kenn mën na nangu nag mais bi mu gën a gaaw kon wax fa islaam yi xam ni nañ ci bàyyi xel xam kat li fekk nit kaa ngi dundu mën na ko def moo xam muy alal la koy defee moo xam mu koy defee jumtukaay boo xam dafay nekk ci ci kaw suuf nga xam waaju du ko moom da koy génne ci moomeelam nay oto nay kër nay ay kaamil yu mu jënd nay téere xam-xam yoo xam ne yu cher la moom xam na ni classe ñoom Souleymane gi bëgg nañ leen téere mënuñu koo am cher na téere am njëriñ ci lislaam nga jënd ko jox ko ko li fekk mi ngi ciy jàng moom yow même ba faatu ñu lay bindal toyaa bi ci loolu kon waqf bari nay façon jënd téere jox ko ñu bokk na ci jënd kaamil teg ko ci jàkk ñu jàng bokk na ci tabax fu ñuy jaamu yàlla comme jàkka nii bokk na ci gas teen bu ñuy naan parce que na dëkk Sénégal dëkk boo xam ne côté yoo xamante ne maa am ñu lu ñuy tuddee maa am lu ndox mu sell mu ñu maa yow na nga dem gas fa teen boo xam ne wala forage boo xam ne dañu fay jariñoo loolu lu fekk ñu ngi naan ñoom waa dëkk booba rek ngay am sa yool yow kon kenn ku du ci mën na def waqfu ci kam kem kàttanam kam dooleem incha allah Euh, yonente bi alayhi salaatu salaam ci njàngalem moom moo ko jàngal saxaaba yi saxaaba yi après la ko dund mooy def waqful islaam yi léegi nag wax naa ko léegi nii yu addis bi ñëw di ko ma wax waqfu mooy ñett la cité waaye gën na yaatu loolu ndax lépp lu jëriñ jullit ci kaw suuf rek lépp lu koy jariñ lu jëriñ jullit ci kaw suuf nga moom ko yow jox ko yàlla ci xol bu set nga xam ne génn sa sa moomeel léegi boo faatoo duñ ko donn parce que bokku sa alal duñ ko may sañuñu ko duñ ko jaay sañuñu ko léegi moom dañ ko jël julli ne ñu julli ñu koy jëriñoo ci dañ ko mën a jëriñoo ba muy yàqu loolu mooy al waqfu al al islaami Amar ibn Xattaab wax naa ko léegi amoon na ay suuf yu yaatu ca xaybar mu ni yónni sama ma ne suuf si ma am ci xaybar mosuma am suuf sama àll sama dund yëpp léegi loo ma ciy sant ma def ko ci mu ni ko ah bu la neexee day nga sarax ko jox ko yàlla maanaam jox ko jullit ñi mooy yàlla ah xam nga yàlla da da ko jox ko jullit ñi mooy jox ko yàlla rek jullit ñi di ko jëriñoo nga am say doom duñ ko doon boo faatoo waaye itam kenn du ko jaay kenn du ko maye Amar ni léegi kon jël naa sama tool bi jox naa ko jullit ñi ñu koy jëriñoo ba keroog addinay tukki mooy léegi ñi ngi koy jox mooy ñu ñàkk lañ koy jox ñu koy jëriñoo ak ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo ne ci ak dañoo am bor bor bu ñu war a fay ci lislaam mënuñoo fay ma leen cee jox ñu fay bor boobu mooy riqaab koo xam ne dafa dafa dafa dafa am jafe-jafe ak ak ak ak bor boo xam ne da leb ci farata mënu koo fay nag mën nañ ko jox ci alal ji mu dem fay ci borom mu dugg ci waqf bi mu ne wala boo ko xam ne ibnu sabil koo xam ne dafa jaar di tukki yëbbalam jeex amul lu ko jàllale nañ jël ci waqf bi jox ko mu àggale voyage am loolu ba tey da gu ci waqf islam bi Omar defal muy nag képp koo xam ne moo géré waqf bi moo ko yore bu fekkee dafa ñàkk mën a jëriñu loo xam nag kem farataam la mën a jëriñu loo xam nag mooy li mën a ñàkk ci mooy mooy ni sit la ci jëriñoo kon waqful islaam yi am na ci lislaam lislaam moo ko njëkk def ci àddina bi ci kaw suuf ka ko njëkk def mooy yonente bi alayhi salaam ginnaaw bi Omar ginnaaw bi Abu Talha ak saxaaba yi ba def nañ ko waaye bu njëkkee nag jamono yooyu nit ma ko doon def moom ma ko defee boppam rek jël alalam def ko waqf ba ba mu yàgg nag ñoo def ne état nag du ko jël loxo état la moom koy gérer léegi jamono daw dawlatu umayya um, um, umawiya muy état umayat ñoom ñoo ne léegi nag état moom mooy gérer léegi waqf léegi képp ku bëgg a def waqf ci lislaam dañuy jox état léegi état moom moo ko gérer gestion bi état état moo ko am na fi Sénégal li ñu tuddee haute autorité de waqf am na Sénégal fii ndax moom état moo ko créé ne képp ku def waqf ndax bu ko xamoon koy gérer ñëwal jox ko état mu gérer la ñu fa nekk tam ay borom xam-xam lislaam ñu fa nekk di ko gérer docteur naka docteur Mouhamad nan def naa ah aaj Lamine aaj defe naa moo fa nekk kon mi ngi noonu Lamine mbokk moom moo fa nekk ci koo xam ne dafa jàng lislaam ak jàng mu leer kon fekkee yow amoo sañ-sañu xam ni ñu koy defee mën ko génne si bopp mën nga dem ca ñoom ñu jox am nii yi nañ ma joxel joxal yàlla julli ñu jëriñoo ñoom ñoo xam suñu koy dugal moo xam dañ ciy faj ñu tawat mënuñoo faju moo xam dañ ciy tabax ay hôpital moo xam dañ koy defar defar ay jàkk moo xam dañ defar ay moo xam dañ dañ ciy defar fexe ba courant bi yomb ñoo xam suñu koy dugal en tout dafa jëriñ julli ñi yow am nga droit nga ko bu fekkee mën koo gérer xool ñu la doy ñoo xam ne xam nga ni ñu ngi ci ñu ngi ci aajo am nañ soxla nga jël sa àll leen jox leen am nga droit jox ko ñu wala nga ko ay ay ay sëtam lay doom am nga droit ni man sama alal jii de jox naa ko diw sàngam ak i sëtam ba keroog ay sëtam di fi am dund rek ñoom ñoo koy jariñoo mën na nekk immeuble boobu yaa tabax yaa tabax immeuble boobu mag immeuble boobu bii de xees sàngam jullit ñi wala nga ni dëkk sàngam wala nit sàngam tudd aw tur ak i njabootam ba keroog ñuy dund ci kaw suuf ñoo koy jariñoo buñu fi nekkee duñu fay ñu dëkk fa li fekk ñu ngi dund ñoom rek ñoo koy jëriñoo wala mënoo ko gérer nga jox ko état mu la ko nga jox ko autorité xool noo ci mën a dund noo ko a defee rek en tout cas mbir la mu am solo ndax nit moom dundam lu mu yàgg-yàgg ci kaw suuf mënta ëpp ñaar téeméer at fi ñu nii loolu rare nga gis ko doon ko doon deux ans deux ans sax jafe na fi ñu nii maximum ay cent ans ngay dégg ay cent cinquante ans ngay dégg mais ku doon ñaar téeméer at Sénégal léegi dafa jafe dund dee ba pare mel ni kuy dund ci wax yi faatara mais yaa ngi mel kuy dund parce que yaa ngi am ay tuyaaba la koy jur nag mooy wax bi nga defal ci bi ngay dund yaata na façon yi wax naa ko léegi bari nay façon ku ci ne mooy xam ba man même mënoo tabax jumaa mënoo tabax kër mënoo tabax ay yoon mënoo tabax hôpital mënoo gas teen am nga sañ-sañ jënd ab téere bu am njëriñ jox ko xam da koy jëriñoo wala ngeen ko jàkka ji kaamil comme kaamil yii nii waqf islam yi dañ ciy bind nga xam ne waajal koy génn ci moom léegi yàllaa ko moom ak jullit ñi ñu ngi ko jëriñoo li fekk waajal ci jàng rek même ko joxoon bu faatoo moom tëdd ci bàmmeelam di jot tuyaabaam ji bay bàmmeel loolu lu am solo la kon nañ ci bàyyi xel insha allahu taala kon waqful islam yi mbir la moo xam ni am na solo lool ndax dem nañ ba tubaab bi léegi di ko jéem a copier def ci anam boo xam ne ñoom bokk na ci cadre l'islam am nañ ko defaree ci ci kaw cadre humain rek doomu aadama bëgg nañ ci yërëm dem ñoo koy moo ñu koy def waaye bokk duñu ci cadre l'islam ñu ne li def ne boole ci def ñaari anam def ko ci doomu aadama yi waaye def ko ci l'islam nga faatu tëdd sa bàmmeel di jot sa yool mbokk yi nañ ci bàyyi xel moo xam danga ngaa yar sa doom sa doom jàng ko lislaam mu am ko xam gu leer faat nga faat bàyyi mu lay ñaanal loolu xeet la ci waqf wala boog nga bàyyi fi xam-xam bu am njëriñ xeet la ci waqf wala boog nga bàyyi moo xam ni lu ñuy jarñoo ci kaw sa ginnaaw moo xam bis la moo xam jàkkale comme nii moo xam yoon woo yoon woo defar la tali teen boo gas yaa xam li nga mën xam ne nit ñi dañu ko jëriñoo rek ni fekk ñu ko jëriñoo sa ginnaaw nga ci am tuyaaba kon xam naa foofu la ñuy yemal tey insha allah taala lépp ci lu jub ci wax bi ah ci borom bi lu dëng tam nañu ko mbokki jég mbokki jërë ngeen jëf سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أيها المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى وتعالى أما بعد فيا عباد الله إن الله أنعم علينا بنعم عظيمة ومنن جليلة كريمة نعم لا تعد ولا تحصى ومنن laa tukaafa wala tujzaa fa maa min tarfati aynin illa wal abdu yanam fiha fi niamin laa yalamu qadraha illa allah jalla wa ala wa ma min dabbatin fi l ardi illa ala allahi risquha wa yalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabin mubiin mbokki jullit yi gannaaw bi ñu santee borom bi tabaraka wa taala jullit ci yonentam bi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 mujjee xéwal borom bi tabaaraka wa taala di suuratu Huud ay juróom benn wa maa min daabbatin fil ardi illa ala llaahi rizquhaa borom bi nee na amul dara lu ñuy dukkat ci kaw suuf nit ak lu dul nit lu dul yàlla moo warataal moo farataal ci moom mu wërsëgal ko wa yaalamu mustaqarraha wa mustawdaaha kullun fi kitaabihi mu xam fan la jëm ak fan la jógee la la koy xaar lool yëpp borom bi da ko programmé lu jiitu muy bind loolu wa ida arada allahu bil abd xayran baraka lahu fi bu naree feeñal yërmandeem ak xéewalam ci jaam bi da koy may mu am lu lew lu dundee wa kataba lahu al fi ma awlaahu min an niam lépp lu dugg fekk ca ak yombal barkeel alalam barkeel njabootam barkeel ko ci situation yëpp ni'matun min allahi karim mutafaddal ahma xéewal nag moom ak ci yàlla rek la mën a yàlla donc mooy xéewalee moo xéewal jaam bu ko neex barke ci moom la jóge yërmande ci moom la jóge fa maa fataha min abwaabi laa yàlla laa yuxliquhu ahad ubbi kenn mënatu ko dégg waaye buntu bu kenn du ko ubbi kon lépp ci moom lu am solo la wërsëg bu law lu am solo la wërsëg law lu am am solo lu jaral yittewoo la pour am ko itam ndax ci la lépp di déparé wa min a'zami asbaabi allati tuftax biha abwaabul rahmaat wal barakaat taqwa mooy jumtukaay bi gën bi ci may nit ki wërsëgu law mooy mu ragal yàlla jumtukaay bi njëkk ci jullit ngir mu am lu law lu dundee mooy mu ragal yàlla ndax ku ragalul yàlla lu mu forsex ku ragalul yàlla lu mu forsex kon li ci am lu law loo dundee mooy nga ragal yàlla borom bi tabaraka wa taala mi ngi naan wala anna ahla alqura wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard nee na bu waa dëkk bi waa réew bi bu ñu ragaloon yàlla rek lépp na gàtt yàlla nee na waa réew bu ñu ragalee loolu dégg la nag donc ragal yàlla du du du benn taxawaay bu koy taxaw rek toog ñun ñëpp ñu ragal nañ yàlla léegi rek affaire yi commencé wàcc ci asamaan déedéet ki ragal yàlla da koy gëm gëm ne ci moom dong la lépp di jóge di def ndigalam def ndigalam mooy lan mooy borom bi nee na dangaa war a ñàkk boo bëggee am lu lew da nga ñàkk nga nangoo ñàkk boo bëggee am lu lew da ngay ñàkkee fu dagana ñàkkee doo ñàkkee ci tappalee doo ñàkkee ñàkkee ci kal doo ñàkkee ci lépp lu xaraam boo ragalee yàlla loo wax da koy engagement boo def boo am jël da koy respecté xoolal rek bu fekkoon ñun ñëpp duñ duñ fenn lu waay wax def xoolal jooju jàmm du mën a jural ñun jafe-jafe yi am yëpp suñ fekkee wu nekk coono boo am rek fenn texe la ko nekk mooy koo xam ne day wax lu mu dul def day jël engagement yu mu dul respecté mooy ku ragal yàlla ku ragal yàlla lu mu décidé dana ko def dana ko jéem bopp kon wërsëg buy lew mi ngi tàmbalee ci ragal yàlla suñu ragaloon yàlla lépp ne gañ ndax bu ñu ragaloon yàlla ku jëlee ci engagement def ko kenn du jël liggéeyu jàmm mu fay la ba pare ngay tapale kenn du jël liggéeyu jàmm mu fay la ba pare te doo ko liggéey kenn du jël liggéeyu jàmm boo mënu waaw dëkk bi li ko tas mooy amateur yi yor métier yi léegi bu njëkk métier dañ koy jàng ba man man ko lu jàkk te doo dem sa bopp di liggéey ci sa compte patron nga xam ne dàq dàq dàqatu na dara waaye liggéey bi ñoom mu engagé ñu fay la mu lekk ndax da nga fay yàgg liggéey mu mu yor la te defaloo ko dara léegi xale yi ñu xaaroo dañuy ñëw rek pour am idée ci métier dal daal dem ubbi sànq liggéey boo joxe jóg loo leen jox yàqu te doo leen mën a dara ndax amul tus amul ci wala yóbbu gaz bu tëj après tëj tëj bàyyi parce que amul dara kon problème yi am yépp ñàkk ragal yàlla moo ko moo ko moo ko jur suñu bu jafe bi mi ngi déparé ci ñàkk ragal yàlla bi bu ñu ragaloon yàlla rek lépp na gañ ibadallah wa min asbabil barakat wa min al umur allati yuftaxu yaftaxu bihi llahu abwaaba al barakat ala al ibad ad duaa wal iltijaa ila allahi jalla wa ala gannaaw ragal yàlla jumtukaay bi ci topp directement boo bëggee am wërsëg bu lew mooy ngay ñaan yàlla ngay ñaan yàlla mu def mu may la wërsëg nga ñaan yàlla mu may la loo jàpp ba am na lew mu ñaan yàlla foo toll di mu may la loo jàpp ba am na lew nga sonn ci lool soo ko defee incha borom bi dana nangu sa ñaan su ko defee nga am li la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa am benn bis bu ñëw ci jàkk ji fekk fa benn saxaaba yi bu ñuy wax Abu Umaama mu fekk mu toog xaw a triste yonent bi ku ja ku jaboot la woon jaboot la woon mooy lu jabootam dund la koy ko xam ndax dafa jaboot yu génne mu mu ñëw jege ko ne ko yaa Abaa Umaama man la ni ajlasaka fil masjid fi haadihi saa Abaa Umaama loolu def ci jàkk yi heure bi heure bi julli amul kenn nekku fi du heure julli qaalu yaa rasulallah humoomun asaabatni wa duyuunun ghalabatni bopp bu ubbu rek ak bor yu métti bopp bu ubbu rek ak bor yu bëri asaabatni alhammu wa ghalabani dayn alladi huwa hammu layli wa dhullu nahar mu ne ko sama bopp moo ubbu ma jaaxle sama bor yi bëri du ma nelaw guddi du ma nelaw bëccëg ndax bor moom bu guddee mu ëpp sa bopp bu bët sa tee mu torxal la bor bu guddee mu ëpp sa bopp ëpp sa bopp mooy bu guddi gi yëpp daal xalaat fooy jaar bu fekk bu bët sa tee mu mu toroxal la ndax bët sa tee doo ko mën a fay ki nga lebaloon toroxal la qaala yaa rasulallah هموم أصابتني وديون غلبتني أصابني الهم وغلبني الدين الذي هو هم بالليل وذل بالنهار قال ألا أدلك كلمات إذا قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك xanaa bu ko loo ba wax la loo xam ne soo ko waxee sa bopp ubbeeku nga fay say bopp ah loolu kay ku ñu wax dana xaaral balaa yaa ah kay loolu rek laa loolu doo ko tax ba ñëw di jàpp parce que xamoon naa suñu fi yaa ngi nga fekk mu ne ko xul ida asbaxta wa amsayta allahuma inni audu bika min alhammi walxusni walxasani wa audu bika min alajzi walkasali wa audu bika min aljubni walbuxli wa audu bika min galabati dayni wa qahri rijaal yàlla yàlla ñu musal ci bopp ubbu ak njàqare yàlla yàlla ñu musal ci tële ak tayal yàlla yàlla ñu musal ci ragal ak nay yàlla yàlla ñu musal ci bor yu bëri ak góor yu toroxalaat yi qaala radiallahu taala anhu arham fa qultuhunna fa adhaba allahu hammi wa xabaatay mu ne ba ma ko yonent bi waxee ca laa ma tàmbali booba ba léegi nag amatuma benn bor te soxla su ma amul fay kon jullit yi bëri nañ jumtukaay dañ dañ ko xam jullit yi seen problème yi leen daal daanaka ñoo ko teg seen bopp parce que ku xam li la feebar xam fi mu fajoo te doo fa dem loolu la yaa ko teg sa bopp ayyuha al ixwa wa min asbaab al barakaat wa min asbaab al asbaab allati yuwassiu fiha ala arzaaq al ibaad silatul arham mbokk jullit bokk na lii bokk na ci lii maye wërsëgu law loo am bokk kook say bokk ngay jokk say bokk nga fexee xam say bokk fexee di leen jokk jokk mbokk nag mën naa dem nuyu leen ziyaara di leen di leen nemmeeku mën naa dekk jàppale leen kon bokk na ci lok yokk wërsëg nga xam ne loolu yàlla war a foofu liggéey am ko sa diggante ak say nga may ñëpp jàmm yéene ñëpp jàmm di toppatoo ñëpp ba ñëpp yéenal jàmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man ahabba minkum an yabsuta allahu an yabsuta lahu fi rizqi an yabsuta lahu fi rizqi wa an yansa lahu fi atharihi wa an yuzaada lahu fi umrihi falyastabir yonent bi nee na ku bëgg sa wërsëg yàq loo dugg rek am ca dara nga bëgg soo nga bàyyi fi jeexital ëllëg si biir boo fi jógee bàyyi fi jeexital bu bu fës soo bëggee gudd fan dee jokk sa bokk yi donc jumtukaay bi gën a gaaw ci may wërsëg ak yokk ak gudd fan mooy jokk sa bokk daanaka koo fi gudd fan boo gëstoo ba ci biir ku fonk ay bokkam ku mën a taxaw ay bokkam wa min asbaabil barakaat allati tujib ala al ibaadi arrahmaan wa nafaqaat wa sadaqaat bokk na ci liy maye wërsëg bu lew mooy nga bari yërmande ci néew ci doole yi ngay dimbale ñi nga tane loo am nangu koo bokk nit ñi rawatina bu jamono jafee bu jamono jafee loo ñaari dërëm loo am wecceeku ko waaw wecceeku joxe dërëm bi bu jamono jafee loo am jéem ko bokk ak nit yi day yokk sa wërsëg mais du ko wàññi am na ñoo xam ne nag day def ne bu jamono jafee da war a mooy ci li ne boo ci moyee dara dugg parce que alal bi dafa jaar ci sa loxo dem bu bu dërëm bi déplacé bu beneen bi du ñëw kon ku xamul dara rek mooy nay ku xamul dara rek mooy nay ku xamul dara dafay day def ne joxe day day tax a ñàkk au contraire joxe mooy tax am. parce que li nga yor boo ko joxee euh, li nga li li ñëwul daal di ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu bu nekk bu xëyee ñaari malaaka ñoo koy dal kenn ki allahuma ki nekk ci ndeyjooram naan allahuma aati mumfiqan xalafan ki nekk ci càmmoñ naan ko allahuma aati mumsikan xalafan ki nekk ci dendoor bi naan yàlla dellool ngóor si li mu joxe woon yàlla dellool jaam bi li mu joxe léegi ki nekk bi naan ko yàlla yàqal li nekk ci poosam bi dina ko ko joxe kon dimbalante day yokk wërsëg euh, dinaa ubbi benn parenthèse ci xutba bi ndax taw bi dafa am solo man dafa am loo xam ne ba léegi mënu ma ko comprendre su ma sañoon ñi koy su julli gi jeexee ñu ñëw expliqué ma imaam bi xutba ngay julli te léegi dafa commencé bari ci kat yi mënuma ko comprendre parce que gisuma ko fenn problème bi ma bi bi bi ma mënoon comprendre mooy imaam nga fekk ko ci jàkk ji war a def parce que jàkk boo ci duggee da ngaa war a loolu bu dee ci fiqu bu fekkee imaam dafa xas commencé xutba doo ko nuyu ci ay julli da si kàddu day wax subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñeenti loolu waaye yeneen mbir yi nee nañ ak bu mën a doon mën ngaa def ñaar ak mais day gaaw kon mën naa comprendre imaam bi xutba nga ñëw ci jàpp ci door a si julli ñaar même bu fekkee lu sama ngir man daa ngir man mais li ma mënta comprendre mooy imaam fekk la ci jàpp ci ba pare ngay jóg te dafa bëri ci jàkk bon kon nag diine ji man moom moom fi laa ko fekk te ma ci xam bëri ma bëgg pour pour sama qualité ñi koy def wax ko ñoom ñu ko def wax yàlla loolu maa ngi koy ñaan parce que da ngay gis koo xam ne dañoo xëddoo jaay sax bu doon dugg moom julli da ngay ñëw di dugg si ba xutba waaye seen village bi noonu ñu toog di ko xaar bu bu noonu di jeexee rek ñu daal jóg loolu yëpp comprendre nga ko euh, ku ko comprendre ak ku ko am te nga ñëw expliqué ngeen baal ma xam ci ci euh, parenthèse parce que fii l'islam bu ñu dajale wut tiyaaba dong ñu fi tax kon lépp lu fi maye tiyaaba suñu xamee dañ wax mais lépp lu fi xaye ci ku ko xam da nga ko war a wax kon loolu lañ aqulu qawli hada wa astaghfirullah bismillah alhamdulillahi wa salaamun ala ibadihi alladina stafa alayhi wa ala imami wa afdali sayyidi wa habibi abil qasim muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi almutali wa baad ayuha alikhwatu almuminun فليس الأرزاق أن يجلس الإنسان في مسجده ولا رهبانية في الإنس في الإسلام فإن الصلاة فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة xudu bil asbaab watlubu risqa al xalaal min abwaabin yuftaxu yaftaxu llaahu lakum min rahmati mbokk jul bi wërsëgu lew dañ koy fàgg dañ koy fàgg doo ko ñaan daw da ngay jëf door a ñaan da ngay wut wër boo amul métier soo amul métier seetal loo xam soo ko jàngee xam nga jàng soo ko jàngee ba man nga dem fi nga xam ne soxla nañ ko am métier nga nga nga war a sa bopp suñ la joxee liggéey nga fonk respecté contrat bi nga sa yi su ko defee nag nga boole ko nag di ñaan ñaan ak yàlla daal di barkeel loolu boo koy jàng boo ñaanee yàlla barkeel jàng nga gaaw a mokkal soo jàngee ba mokkal dem fi ñuy wute métier boobu nga boole ko ñaan boo fa demee da ngay gaaw a am lu jël su la jë suñu la jëlee nga respecté condition yi yàlla barkeel sa wërsëg barkeel li ngay ame ci loolu loo loo ci jëlee mu fekk si donc kenn du toog di ak loxoy neen di wut lu lew loxoy neen mënut a am lu lew yàlla du taw wurus du taw xaalis alal du lew dañ koy ñaq koy joxe ñaq kenn ku ne am na lu man la nga man def ko ne yàcc na yasal rek doo def dara doo yëngal dara ñu wax ne kenn amul loo liggéey te boo waroon am loolu tam du du tax amul leer kon nañ jàppale suñu bopp nañ jàppale suñu bopp te mooy ñu def sabab bi ba pare ñaan borom bi tabaaraka wa taala mu barkeel suñu jëf ñu door a yaakaar solution bi métier nag amul métier bu bon métier mu xam mu dagane liggéeyam jullit mën na ko def nekkal baykat nekkal sàmmkat nekkal barakat li am solo mooy yow li nga am lew ndax ki nit ci bureau bi ñu ñu climatiser ko te te li muy liggéeyee lew amul sens ndax la mu fay jël du barkeel te alal bu barkeelu du faj soxla day yàq kon ngay bale te mu lew la te ñaari dërëm yooyu te alal mu faj soxla loolu moo ko solo kon métier du tuuti. métier du xeeb na nekk rek na nga liggéey fu charia nangu nga liggéey ko te nga def ci li mu war toog fi yore sa kurus di werd rek na rek nga jël ko di werd loolu moom taxul tur yàlla yi loolu taxul tur yàlla yi loolu moom taxuloon tur yàlla yi jóg tur yàlla yi moom li leen li tax a mooy nga def sa waru garab ba ñaan yàlla mu defal la li nga mënul yàlla da da ngay def li nga man ñaan ko mu defal la li nga mënul waaye boo deful li nga man du la defal li nga mënul boo gisee coow yu bëri loolu course yi kenn ku nekk comme course nga rek dara sottiwul parce que da ngaa deful li nga man demal ngir ñu njëriñ yonent bi salaa salaam bu masaa nga gis ponkal mu dara jotu muy comme ni mu bëlee léegi si jamono ji man jamono ji fi mu ne nii nit ñi laaj see dafa doy waar surtout xale yu góor xale yu góor boo xam ne comme bu doon xale yu góor boo xam ne bu bu la doolee daal mu yor xol di dugg ci kër jàpp yi kooku bu duggee ci kër bu wéet lu fa manqué boo dem ba na ko jël kon dañ bàyyi caaxaan yi nañu liggéey am réew liggéey la koy développé waaye wër di yàlla bu mu ko rey yonent bi sallallahu alayhi wa na law annakum tatawakkaluuna ala allahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu tayr tamdu xibasan a taraw babana wala biqaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku bàyyee sa bopp ak yàlla ku wëkkilu ci yàlla yàlla wërsëgal lan mooy bu mel nañ ko rek lan mooy bakk wakkilu ci yàlla mu ne wakkilu ci yàlla mooy nga def ni picc yi def xëy xëy gën tàgg picc bi day xëy gën tàgg buy xëy day xiif waaye bu ñu si biiram day fees daa xëy moo tax euh, ñaari taalibe yi dañ doon tooñante kenn ki yor kursam rek kii mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne morom bi yow doo dem jàpp wut ko dee leen parce que euh, gis na ma leen ah, picc yi benn picc mooy dem wëri ñëw jox mu ne ko lu tax da nga woo dem nekk picc bi wëri nga bëgg nag mi picc mi mi ñuy jox mi ñuy xol loolu du dara lu dul ak yaafus jullit du yaafus jamono ji métti na waaye métti bi ñoo ko Sénégal moom yàlla xéwal nañu parce que Sénégal wax dëgg yàlla yàlla def dafa xéwal ndax fii li fiy liggéey li fiy liggéey ci nit par rapport ak ñeneen ak ñiy jël comme yàlla ak yàlla daanaka kër boo dem bu bëri fukki nit kenn wala ñaar loolu amul feneen kon baax na ndax solidarité la waaye bu ëppee itam du sotti. bu ëppee tam du sotti kon kenn ku nekk ñun da am lu mu jéem kenn ku nekk la jéem dara def ko te yàlla tax su ko defee borom bi barkeel ko ñu am alal ju law joo xam ne mooy tax ñu mat ay jullit ndax nag coow li coow li mooy alal ju law alal bu law mënut a jaamu yàlla alal ju law mënut a jaamu ñu bëri ci ñun nag duñ ko sóoraale ñu bëri ci ñun sóoraale am lu lew nañ wut lu lew lu mu tuuti tuuti baax ba jëli ci borom tabaaraka wa taala ñaan ko mu yombalal jamono dolli xéewal yi Sénégal daal moom wax dëgg yàlla suñ defoon tuuti effort danañ ci génn xoolal li fi nekk ci suuf rek xoolal li fi nekk ci suuf fu ne wax nañ ko fa mooy suuf si nangu mbay ci Sénégal mooy bayu diiseen bu doon bii hectare la benn hectare bayu wala liñ bay ëppul hectare suuf sépp ba nangu bay Sénégal daanaka fépp la ndox am ci Sénégal waaye ñu nekk fi rek bàyyi àll bi yëpp mu nekk mbooy ba pare ñu toog di xaar nawet nawet bi moom yàlla day taw mais ñun doomu taxul muy taw ñun doomu taxul muy taw yàlla njabootam ëpp nañu ëpp nañu moo tax léeg-léeg taw bi yàlla tëralee ko loo xam ne dafa arrange ñeneen ñi defee bii te bokkuñ ci donc ñun liñ ciy génne mooy ñu fexe ba génn ci mooy ñu mu jëlee sukkandiku waaye ñu taw kese kese benn imaam mas na ko wax dama koy nettali lu bari. ndax daf maa yéem ci wàllu xam nag mooy développe dafa wax ni Sénégal war nañoo passé di xaar nawet bi ngir ji ngir bay dañoo war a àgg ci xaar nawet bi ngir taataan ndox xam ne bu tawul benn weer sax danañ mën nañoo taataan ci ndox mi bay am suñu def utoon ay technique te loolu nag dafa laaj volonté politique loolu état bi moo ci mën a jàppale ñëpp moo ci xam parce que am na ay moyens yoo xam ne nit ñun amuñ ko mais état bi li muy tey ci ay xeex mbënd mel xam xeex ay affaire yooyu wax li mu ciy tey bu fexoon ne fexe na ba ba ut lu ñuy tàllaale ndox nga xam ne ak ku jot bu nawetee même bu tawee benn weer mën nañoo dajale ci ndox loo xam ne mën nañ ci bay fukki weer rek loolu misaal bi jot solul demal fii rek ci si Touré suñu àll bi rek rajo Lalla Talla bi. taalibu Serigne Daara fii ci Fass réglé woon na bu nawet mu taataan yoo xam ne daanaka Fass li des ci noor bi yëpp ci la ñuy naan yàlla jàppale ci dégg diine yi yàlla yàlla baaxe ay kilifa waaw yàlla yàlla baaxe ay kilifa yu mat kilifa ñun suñu problème mooy ñàkk kilifa loolu lañ yàlla nattoo ca suba depuis dem depuis dem lañ am problème kilifa. ñun fu nu nation man mën a mel mën nañ ko mel fu nit mën a egg ci développement mën nañ fay mais amuñ kilifa te ku mun ku amul kilifa mu tëral xel su ma kilifa amul maa ñu kilifa bu mat kilifa parce que bu fekkoon ne am nañ kilifa bu mat kilifa depuis indépendance ba léegi di juróom-benn fukki at da lay passé nawet bi ren baaxul parce que taw aqulu qawli hada